aywa ñu dellu si waat ci euh, ba tey info matin jàngatu bés bi euh, Chérif ñu ànd ko ak daaw daaw de miin ak euh, la muy nag commission d' enquête boobu nga xam ne ñu ko fas yéenee tijji enquête parlementaire ca assemblée nationale loolu nag li ko waral xam ngeen ne wàllu ger googu ñu tudd euh, di tudd yenn ci ay sages yu conseil constitutionnel ba tax na kuréelu magistrat yi seen nawle yi euh, jóg nañu ŋàññi ñi amal boobule doxalin ba noppi tam ne ànd nañu ak seeni ñoñ tey ak ëllëg euh, ba noonee xeex bi di jeex mel ne nag laaj bi ñu samp Chérif fas yéene koo jëmale ci Daouda mooy ndax député yi mën nañoo atte sage yu conseil constitutionnel. Daouda procédure bi ndax jaar na yoon. <laughs> maa ngi nuyu encore une fois les téléspectateurs de la TFM. di am yaakaar que nii lépp lu ñuy euh, wax dina jariñ askan bi. Mm-hmm. Euh, ndax procédure bi jaar na jaar na yoon euh, waa assemblée nationale. Mm-hmm. loi bi nga xamante ne moom moo institué le règlement intérieur bu assemblée nationale. Mm-hmm. jox nañ leen possibilité ñu créer ay commission d' enquête parlementaire am nañu possibilité je pense ci article quatre vingt quatre bi mais commission d'enquête parlementaire pour recueillir un certain nombre d'informations maintenant boo recueillir information ba pare lan nga koy doyee peut-être foofu mooy mooy wax ba après parce que commission d'enquête parlementaire c'est juste pour recueillir des informations mm-hmm. mais après su fekkee ni yow nee nañ kii dañ ko dañ dañ dañ ko ger mu nekk ger c'est la corruption corruption bu nga xamante ne c'est une infraction pénale prévue par le code pénal boo demee article 159 bu code pénal mhm. dafa am ay daan yu nga xamante ne da ko teg ci ger mhm. bu fekkee ni da nga nekk ku nga xamante ne yaa ngi membre de l'administration wala nga nekk magistrat bu ñu la geree peine bi nga xamante article 159 bu code pénal da koo tëral mooy ñaari atu kaso mën na dem ba fukki atu kaso mhm. donc yow boo demee nga ne man damay instituer une enquête parlementaire su ma demee ba am information information yi nga xamante da nga koy collecté après mënoo ci xaala wala kasiran mm. parce que yoon mayu la benn yoon nga mën a topp magistrat sur le plan disciplinaire yoon mayu la également nga topp magistrat sur le plan pénal amu amoo possibilité yow assemblée nationale mm. parce que dañuy fàttali ni article 59 moom moo jox li nga xamante ne moom mooy euh, prérogative bu assemblée nationale assemblée ñetti prérogative la am en vertu de l'article 59 de la constitution muy benn nga voté ay loi ñaar mooy nga contrôler l'action gouvernementale et trois mooy nga évaluer également les politiques publiques moom mooy ñett yi nga xamante ne da nga am en dehors de ñett yooyu amul fenn fu nga xamante ne am nga possibilité nga def lenn lu nga xamante ne euh, jëmale ko ci pouvoir judiciaire mhm. nga jël article 88 bu constitution daf ne pouvoir judiciaire dafa nekk lu nga xamante ne organe moo xam dafa indépendant ci pouvoir exécutif ak ci pouvoir législatif et que pouvoir judiciaire boobu ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy exécuté moom mooy conseil constitutionnel moom mooy euh, euh, la cour de comptes moom mooy la cour suprême et moom mooy les cours de tribunaux donc li nga ci déggee mooy tey tey tey tey tey tey su fekkee ni carrément am na lenn lu nga xamante ne benn magistrat def na ko ña nga xamante ne ñoo leen mën a topp ñoom ñooy seen i ñooñ. muy muy muy pouvoir judiciaire. kese kese kese kese moom moo mën a topp magistrat. Mm-hmm. bu fekkee ne sur le plan disciplinaire article neuf bi nga xamante ne moom moo institué l'union de magistrats du Sénégal le conseil supérieur de la magistrature astafurlah moom mooy organe bi nga xamante moom moo mën a topp magistrat. Mm-hmm. sur le plan disciplinaire. su fekkee ni dafa nekk ku nga xamante ne dafa def benn infraction pénale mm-hmm. daf ne le procureur général de la cour suprême le article bu loi bi nga xamante ne moom moo institué la cour suprême moom moo ne le procureur général de la cour suprême moom moo mën a enclencher une procédure contre ce magistrat là te tey boo jëlee article 93 bu euh, conseil constitutionnel daf ne sauf flagrant délit constitution waaw ah, article 93 bu constitution asafur la sauf flagrant délit benn magistrat bu nga xamante dafa nekk conseil constitutionnel mënoo koo topp mënoo koo jàpp mënoo koo poursuivre mhm. bu dul autorisation bu nga xamante ne conseil constitutionnel en personne moom moo ko joxe. donc li nga ciy dégg mooy mhm. tey tey tey tey tey tey tey mhm. euh, union de magistrats du Sénégal euh, fàttali nañ ko. assemblée nationale amul benn prérogative. kon doguma la sax foofu mais lan moo nar a njeexintalu bi. Euh, li ñuy def nii c'est à quoi ça sert. man de pour man pour man véritablement li nga xamante dañ ko jël yóbbu ko au niveau de l'assemblée nationale. c'est juste juste juste une démarche politique mais mënul am beneen jeexital bu nga xamante ne daf koy am sur le sur le plan judiciaire parce que amuñu assemblée amul benn yoon prérogative bu nga xamante ne mën na topp un magistrat mën na enclencher une procédure contre un magistrat donc dañuy bañ na duñ wuy mm-hmm. yow mi nga xamante ne amoo benn prérogative pour déglu ma boo ma woowee du ma ñëw. Mm-hmm. Eh, homme politique yi sax dañ def loolu Ousmane Sonko. Mm-hmm. député bañ ko ñëwee convoqué ko mais dafa ne man dama am immunité parlementaire en tant que député yéen ñi may woo amu leen sañ sañu wuyu ma fu si fula la parce que tout simplement respecté ñu woon la loi bañ demee pour déglu ko wala ñu war ko kii dañoo dem ñu def ñu lever immunité parlementaire parce que loolu la yoon wax mhm. tey tey tey également bu fekkee ne loi daf ne yow amoo sañ-sañu nga convoqué ma man magistrat mais ba mhm. maintenant su da nga ne am nga ay éléments yu nga xamante ne contre un juge encore une fois juge magistrat bu mu mën di doon nekkul ku nga xam ne dafa am impunité. amul benn impunité su fekkee ne def na naka sa du noonu am nga firnde ne def nga naka sa du noonu am na des voies xam nga des moyens yu nga xamante ne fa nga mën a jaar pour la nga xamante ne def na ko mu daal di répondre devant la loi. parce que ñoom seen bopp ñi nga xamante ñoom ñooy appliquer la loi bu fekkee dañoo jalgat yoon également yoon dafa war a tegu ci seen kaw mais dafa am yoon bu nga xamante moom ngay jaar te yoon boobu du yoon bii ñu jël nii mais mais Daouda yi dafa dafa doon accusation yu doy waar même si ñoom euh, waxuñu ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo samp seen nënd ñoom ñoo ger wala ñeneen ñu nekk ci ginnaaw euh, ñoom ñoo ger mais euh, boo xoolee ci xel bu sell bu ñu waxee loolu xel day dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di candidats yi même si cité wuñu leen carrément carrément ñoom dans tout ça waa xam nga man xam nga man ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne kii dañoo gerte. Mm-hmm. tant que ñoom joxewuñu benn élément man mënuma extrapoler. Mm-hmm. kan moo ger kan lañ ger ils ont cité soupçon lañ wax. Mm-hmm. soupçon doo njortuwaane soupçon tu peux pas te baser sur des soupçons pour attaque une personne. la fois dernier wax naa ko gis nga honorabilité nit nit bu fekkee ne da nga da nga da nga da nga respecté sa bopp da ngay également ses vis vis tey tey tey tey tey su fekkee ne dama lay accuser yow dafay fekk am naa de preuves yu nga xamante ne mm-hmm. moom mooy étayer accusation boobu mm-hmm. su fekkee nekk lu nga xamante ne dafa nekk lu nga xamante ne dafa violer la loi ma jaar ci yoon ba nga xamante ne fa la ñu war a jaar pour que ñu condamné la bu ñu la waree condamné mm-hmm. mais waaw dañoo soupçonné une infraction premier élément c'est l'élément matériel infraction bu fekkee dañ lay topp ci benn infraction élément matériel la élément légal élément intentionnel ñett yooyu moom mooy pour une infraction. est-ce que du preuve yi ñoom. bu dee am na ni preuve dañ koy yóbbu ci commission. maintenant su fekkee ne am nga preuve. Mhm. am nga preuve du commission nga koy yóbbu encore une fois parce que commission su fekkee ne collecté na pare mënul def lenn ci kooku su fekkee ne rek da bëgg kooku nga xamante ne dafa def dafa def naka su dul noonu ñu teg ko ci yoon du commission ngay jaar am naa des preuves. le procureur général de la cour suprême en vertu de l'article 102 bu loi su la cour suprême moom mooy ki nga xamante ne moom moo mën a topp yu mel noonu parce que article bi ma la wax bi ma la bi ma bi ma la wax léegi mooy 93 bu euh, conseil constitutionnel daf ne les magistrats du cour de la cour suprême boo leen mënee topp da nga leen topp dans les mêmes conditions que les magistrats de la de de la de de. du conseil conseil boo leen di topp. da leen di topp dans les mêmes conditions que les magistrats de la cour suprême. mais magistrats de la cour suprême pour nga topp leen da dem ca les dispositions de la cour suprême. en en son article 102 wax na nan lañ leen di toppee. et c' est procureur général de la cour suprême moom moo mën a enclencher une procédure contre ces gens bu boobaa mm-hmm. bu boobaa bu ñu waree mettre par exemple une commission d' instruction. Mm-hmm. c' est prévu par les textes. Mm-hmm. y' a que cette commission d' instruction moom moo mën a ñëw saytu. xool ndax magistrat bi lañ koy jiiñ moom moo ko def su fekkee ni am nañ ay éléments à charge. ñu bu boobaa ñu daal di ne dañ koy jugé su fekkee ne amuñu ay éléments yi bu boobaa ñu def mm-hmm. noonu ya mais loolu mooy yoon bi nga xamante ne. Mm-hmm. moom la moom la yi prévoir. ñii ñii ñii craindre ne xëy pression bi mën naa tax ñun joxoñ baaraamu ko ma démissionné loolu mën naa am conséquence ci processus. électoral non je pense pas parce que parce que bu ñu fàtte ni ña nga xamante ne dañ leen dañ leen tuumaal. Mm-hmm. c'est des magistrats yu nga. xamante ne ñu ngi ñëw waaw. c'est des magistrats yu nga xamante ne dañu gravir tous les échelons. ñañu la ñañu ñañu tuumal encore une fois. Mm-hmm. c' est des magistrats qui ont gravi tous les échelons. Mm-hmm. c' est des yu nga xamante ne dañoo commencé seen ndorteel. Mm-hmm. dem ba boo jëlee ku mel ne Cheikh Tidiane Koulibaly il a été premier président de la cour suprême donc ay pression ay consort xam nañ moom mooy lan donc c' pas ay wax yu nga xamante ay wax yi moom moo leen di moom ñu démissionner ou quoi que ce soit te ci taarix ñun dañoo am habitude à Ablaye wa Ablaye Wade daan na ko def. Mhm. en 2000 en 2012 Macky Sall mi daan na ko def. Mhm. en 2000 en 2024 euh, bi ñu nekk ni également. Mhm. waaw ña nga xamante ne ñoom lañ daan tuumaal actuellement ni ñoom ñoo nekk. mais ñoom c'est fii li ñu fi gis mooy c'est la majorité qui soutient une mm-hmm. initiative de l'opposition. loolu mooy lool mooy lu nga xamante ne loolu mooy lu nga xamante kenn mënu ko comprendre encore encore une fois cest à que tey waa PDS. ñoom ñooy ñi nga xamante ñoom ñoo soutenir benn accusation daal di ne dafa am ay soupçon soupçon soupçon de guerre mm-hmm. daal ñëw ne da il faut que ñu def une commission parlementaire mais ña soutenir mooy ñu nga xamante ne ñoom ñooy waa Benno Bokk Yaakaar waa Benno Bokk Yaakaar dafa ne règlement de compte lañu waa Benno Bokk Yaakaar ki nekk seen kilifa moom mooy le président le président Macky Sall mm-hmm. président Macky encore une fois mm-hmm. moom mooy président euh, Benno Bokk Yaakaar moom mooy mais en en même temps moom mooy président de la République. Mm-hmm. et le président République moom moo nommé les sept sages. Mm-hmm. encore une fois il faut pas qu'on l'oublie. Mm-hmm. c'est un bu nga xamante moom la jël nommé les sept sages. même bu fekkee dañ ne ñaar ñi c'est sur proposition de l'Assemblée nationale. moom moo leen nommé. mais on suppose que un président République boo demee bay nommé ki nga xamante moom mooy saytu nga ko saytuwaat nga ko xool nga ne honorabilité bi mu war a am am na ko mhm. xool na ni kenn ko nga xamante amul benn gàkk-gàkk nga jóg nga dog nga dog ko fu namee mhm. on ne peut pas comprendre nag que mu am ay soupçon encore une fois dañ ne ay soupçon amul benn élément de preuve bu nga xam bàcc nañ amul benn lu nga xam teg nañ ko sur la place publique mhm. que yow ngay soutenir une accusation pareille que ñuy vilipender des magistrats yu nga xamante de haut ba tey jii ñuy wax problème institution ndax mm. nangam ak nangam conso man pour mm. man mm. pour man wax dëgg yàlla mm-hmm. c'est une accusation légère mm-hmm. bu nga xamante on ne pas se baser sur ça mm-hmm. pour naan dañuy def enquête enquête parlementaire surtout que il euh, a énormément il a énormément de demandes yu nga xamante ne opposition bi def nañ ko. Mhm. pour def ay enquêtes parlementaires. Mhm. sur des faits yu nga xamante ne jël nañ ko teg ko sur la table mais jusqu'à présent kenn déclenché wul quoi que ce soit. Guy Marius Sagna bi d' accord euh, euh, euh, mais mais mais Daouda. wàllu honorabilité wàllu honorabilité. Euh, fii ci réew bu Sénégal dem nañ ba euh, soofantal ko naam njiit bu réew bu Sénégal wàllum wëy na ñu ngi xaar keneen koo xamante ni war nañ ko tabb ci élection présidentielle yi ñu euh, dëkkmal lan nga jàpp ne wala fan nga jàpp ne bu ñëwee fa la war a mën a dut baaraam ngir lu ni mel ñu bañ di ko foowee. non dama ne gis nga honorabilité nit. Mhm. même bu fekkee ne ñu ngi koy dañ koy soofantaal. Mhm. nit ku am honneur il va rester avec son honneur jusqu'à la mort. tout mën nañ soofantal mhm. mën nañ ut gàkk-gàkk doomu aadama mhm. mais nit bu yàlla defee ne yow da nekk ni ko xam da am honneur quel soit lu ñuy mën a wax ci yow tout dégg wolof ñu naan la bañu ma ku ci gaalu xaj mais duñu ma fekk jamais ma ciy la sànni xeer mhm. nañ jéem a gàkk-gàkkal c'est pas le plus important le plus important mooy bu ñu la fekkee jamais la nga xamante ñu ngi la koy defal ci tuuma wala muy gàkk-gàkk boo nga xamante moom moo accusé moo a une preuve wala benn faisceau de preuve contre ces magistrats là. Mhm. nañ jaar ca yoon ba nga xamante ne moom la texte yi tëral. nga dem foofu nga def ko ci bu fekkee dañ leen war a condamné ñu mais tu peux pas te peut-être des faisceaux parce que tout simplement nee na la benn affaire boo xam da ko bëggoon. Mhm. wax naa ko sànq dama koy fàttali. Mhm. Karim Wade dañ ko accepté. ci liste vingt une personnes bi kenn déggul. ñan ñoo leen accepté kenn koo xam ne moo nekkoon candidat daal di def recours. recours bañ defee recours ba pare ñoom ñu jox ko la possibilité pour que mu àddu ci recours boobu. Mhm. mais mu àddu indi ñaari document c'est ça document boobu benn bi moom mooy une attestation bu nga xamante ne moom mooy wane ne dem na ca Qatar. Mhm. xam nga ca ambassade France pour déposer que ni dafay dafa bëgg a perdre nationalité française. beneen bi moom mooy un décret bu nga xamante ne signé. bu bu 16 janvier 2024. Mhm. pour wane ne instant boobu la perd sa nationalité française mhm. avant boobu defoon na déclaration euh, sur l'honneur au niveau du conseil constitutionnel au mois de décembre. Mhm. léegi entre déclaration sur l'honneur ba. ak euh, décret bi nga xamante ne moom mooy wane ne perte nationalité mais am na am am na différence ça veut dire que ba muy def déclaration sur l'honneur il n'avait pas encore perdu sa nationalité sa nationalité sénégalaise sa française astafurlah le conseil s'est ah pour invalider parce que moom moo jël paaka bi nga xam moom lañ ko rendee moom moo ko joxe. Mm-hmm. Mm-hmm. comme ni ko Mor waxee sànq nag nul ne peut se de sa propre tuute mënoo def erreur sa erreur. Mm-hmm. les gens se basent sur pour invalider sa candidature par nga wëlbatu ko après. ña nga xamante ne ñoom ñoo jël décision boobu. nga ne da leen di attaqué. la cay mujj mooy ci cëppaandaw ga. encore une fois. je pense que wax nañ ko waxati ko. article 92 bu constitution moom moo ne les décisions du conseil constitutionnel ne susceptibles d'aucun recours c'est ça ça coow li lu muy am am am am bi nga xamante ne dañ ko prévoir en 2024 mm. mm. dafay am ñi nga xamante ne également c'est les vingt personnes ñu nga xamante ne liste nañ leen pour que ñu war cee dem. Mm. ñoom ñooy ñoom kese ñi nga xamante ne. ñoom ñoo mën a dem ci élection yooyu. sunu sunu invité yegg si na xam naa dinañ wax ci coup d'état militaire yi. Mm. ak li xew fële ca euh, CEDEAO nga xam ni dafa am ñetti pays yi nga xam ni décidé nañ génn. Mm-hmm. mais daaw da ñu bëri ñu ngi méngale décision bi ak euh, dison benn coup d'état constitutionnel. Mm. est-ce que yow d'accord nga ci baat boobu. non peut-être bu fe bon fekkee ne da nga bëgg ca cëppaandaw ga mhm. que conseil constitutionnel la nga xamante moom la ko dési moom la décidé. Mhm. te constitution may ko ko moom nga bëgg a jël nga nasaxal ko bu demee ba yemb quand même mën nañu wax ni coup d'état constitutionnel la. Mhm. parce que li ñuy woowee coup d'état constitutionnel mooy constitution bi lii la tëral. ñu def la nga xamante moom la constitution bi tëral nga ne la constitution bi tëral man bëgguma ko il faut que ñu faase ko def leneen bu boobaa bu bu demee ba nga xamante ne li ñu bëgg antu na bu mhm. boobaa cour de la constitutionnelle lay doon mais mhm. jàpp naa ne du antu mhm. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Daouda Mine 6h30 euh, ba léegi euh, wala 6h45 yaa ngi ànd ñun Chérif ak invité moom tàmbali nañu seen waxtaan xam naa ñu dem fekk leen rek bu ko defee ñu biral ko parce ñu ngi yëkkati ci suuf léegi léegi